waa loolu moom dañ koy faral di gis saa bu événement amee donc bu événement lu mel ni ma euh, tabaski wala tey euh, tey gis nga ko tam xarit lañ nekk parce que si jamono yooyu la ñuy utiliser euh, quand même d'une manière bi nga xam ni anarchique le courant on a noté des branchements clandestins occupation anarchique donc occupation anarchique bi je crois que effort yu ñu ci jëm moo tax tey sax sapeur amul woon difficulté pour mun a egg si site bi maintenant beneen bi nga xam ne moo ñu dese mooy les branchements clandestins donc gis nañu ni loolu souvent dina dina dina dina dina indi ay ay ay ay lakk-lakk donc dinañ ci jël mesure ba nga xam ni euh, képp ki nga xam ni war nga am courant di nga am courant ku warul am courant dinañ ko dindi. waaw moom laa wax xam nga marché bi moom ñun ba ñuy ñëw fekk nañ bi lu nga xam ni marché la bu nga xam ni. ah yoon amul woon ci biir marché bi branchement clandestin yi lu mel mu mel ni ah tulleeg mer maintenant lu mel ni occupation anarchique bii man maa ngi fekkee waat lu bi mooy ñaareelu incendie mais première incendie bi nga xam ne amoon na fi ci Petersen bi boobu oto oto sapeur sax mënul woon dugg tellement occupation anarchique mais tey ci opération de déguerpissement yi nga xam ni commune Thiès Nord def na ko moo ñu permettre même lakk bi ba mu ameek sapeur mun a ñëw mais beneen bi lu ñu mun a wax mooy les branchements clandestins gis nañu ni musiba lay indi dinañ ci jël matuwaay comme lu ñu jëlee matuwaay si occupation des routes et de du wax aussi ambulants yi commerçants yi aussi nañ ñu jàppale parce que bu ñu def opération de déguerpissement yi dañuy jàpp ni ñun dañ leen di xeex mais seeni sécurité moo tax ñu ni parce que bu yoon amul yoon bi fat nit yi am indiscipline indiscipline totale ay branchement musiba bii lay indi donc moo tax ñun comme ñu ngiy xeex si wàllu occupation anarchique yi dinañu beneen aspect bi moom mooy branchement clandestin yi incha allah dinañ ci jublu ba nga xam ni ku warul ku warul am courant doo am courant biir marché central. voilà monsieur le maire revenez à des chaque. ñëw nañ fekk li nga xamante ni. ci marché central ñu koy euh, ñuy massawu d'abord ñi nga xam ne ñoom la dal seen kaw xamanguñu lu xew xamaguñu fu lakk gi jóge mais li ñu constaté rek mooy gis nañ ne marché yi au niveau de Thiès chaque fois dañuy am ay lakk yoo xamante ni daf ciy am loolu nag jàpp naa ne war nañu fexe saafara ko saafara bi nag mi tàmbalee ci diagnostiquer d'abord lan moo koy indi organiser wu xool aussi la nga xamante ni noonu la ñu war a liggéeyee pour que marché yi ñu gën ko mën a organiser donc loolu jàpp naa ne Euh, mooy li nga xamante ni nii moo war bépp autorité aussi ñi nga xamante ni aussi ñoo nekk ci marché yi muy délégué yi ak ñi nga xam ne ñooy commerçant yi te nga xam ne lii seen kaw lay dal war nañu aussi bokk ci waxtaan bi nga xamante ni loolu lañu ci indi ay saafara pour le moment teel na ñuy wax ne lii moo ko indi lii moo xew leneen ak leneen mais li xew mooy constaté nañ que lakk yi bari na ci marché yi cees donc loolu li muy firnde rek li muy wund mooy war nañ gën a góorgóorlu autorités yi nga xam ne ñoo yor Euh, li nga xam ne noonu la ñu war a liggéeyee marché yi ñu gën a lu ba lii bañ fi jógati bañ fi amati donc loolu jàpp naa ne euh, ñun ñëpp la war muy ku yor maire ku yorul maire yi autorité centrale te xam naa ne euh, président ak ñi nga xam ne mooy ministre bi war nañ leen informer parce que autorité administrative yi ñu ngi foon autorité locale yi ñu ngi foon donc dinañ gën a xool li nga xamante ne ni jàpp nañ ne mooy indi mbir yi pour ñu mën ko saafara. marché bi dañu jàpp waaw xam nga branc duñu ko def amul ay complicité wala leneen ñu koy def jàpp naa ne nit nag su fekkee da nga nekk kilifa nekk yor gox ñu jox la gox war nga mën a jël say rek xamul yoon wi boo ko waxul yoon wi moom mënut a xam exactement lan la war a def. donc loolu jàpp naa ne c'est les autorités qui sont les premiers responsables ba ci pare keneen ku ci topp nag war ci topp merci. bi mu ko waxee yaakaar naa mu dugg seen préfet sous préfet si moom wax lii euh, wax dëgg yàlla aussi euh, lépp lu ñu gis ci marché bi loo xam ne day lore def nañu réclamation def nañu ko la ñu mën bind nañu wax nañu kayit ba date bu ne mën mi ngeeg man ma teg yaakaar naa la ñu war yëpp def nañu ko waaw. bu ngeen jógee ci li ñu mel yan matuwaay di jël. bi yan matuwaay yi ñu ci jël rek mooy yi ñu jëloon rek. li bañoon démb moom la ñuy bañ. Euh, mooy ni daal vraiment brasement ci marché bi nañ ko dindi. mu jeex une bonne fois toute ñëpp nekk ci jàmm ñu am jàmm ñëpp am jàmm parce que lii vraiment ay millions yi millions centaines de millions lakkatee ji métti na waaw.